ziar bu baax Aba. El Hadj maa ngi lay delloo ziar. naka suba gi. ñu ngi sant bu baax. ci ziar laa Diop ak auditeurs yi nga xam ne ñu ngi déglu RFM yëpp yëpp yëpp. Hmm. mais camionneurs yi nekk Maroc. dañ hmm. leen bàyyi xel. waaw ak ñëpp korité ak ñeneen ñi rek fu waay mën a tag ci réew mi daal kilifay Sénégal organisé wu ba taxaw ji leen. loolu moom mooy mooy li nga xam ne mooy li gën. parce que booy tàmm di daw di ñëw. Hmm. di def ay nawet ay quinze jours ak yooyu. bi hmm. depuis Korité ba tey fekk la fa. yàgg dëgg na mu njaboot geeg yooyu nañ leen bàyyi xel. mbas mi kay moom loolu rek war na tax ñu daal di koy euh, wër ndombo. xeex ko waaw parce que fi mu sooxeel yëpp dafa bari dafa dem ba au delà de l' économie dafa dugal euh, fitna ci penc mi. Hmm. waaw jaxasin ni presque aw ah, daanaka xam nga ni saytaane def saytaane day ñëw boole ñoo xam ni. ñu daan nekk bis bu ne bu ko commencé ca sénégalais ak immigré yi bërit lañ def rek mu bëgg ñoo jaxase suñu mbokk immigré yi nga xam ne lu ne lañ daa def ci réew mi lu ne mm-hmm. lañ fi daa yónnee mm-hmm. ñu dem ba bu ñuy ñibbi si am ñu naan déet bu ñu ñëw xam nga loolu nga xam ne kon feebaru saytaane bi mm-hmm. yàlla na fi gaaw yàlla na fi gaaw jóg ba pare euh, parfois âge ah, ñun ñi nga xam ni euh, yàlla daf ñoo dénk euh, ñu yor wàllu peut-être parfois communication bi di dox ci communication parfois nga wax mm. gars yi nañ toog ci seen i kër gars yi ne la yow dangaa toog sa kër yaa ngi sa place liggéey kaay naan nit ñi <laughs> toog leen nañ toog moom wax waxatoo ko de xanaa. toog leen ah de wax naa ni ah, kay. bàyyil wax jooju moom. man li man wax laa wax. waaw mooy nanu ànd ak moom. nan dund ak moom ah, eh, nan ah, non nan ne mais bu nu ànd ak moom. moom kay fu mu toogee baax na comme mënuñ ko fee sempi. waaye am na nu nuy defee ñun si si si dund ak moom mooy xam nga mu ngi fi en présence. nañ dund en présence du virus. Mhm. mais nañ fexe ba ber ko beddi ko moom. xam nga li koy ber mooy lan cest à bu ñu defee mesure barrière yi. sa cest que ni ñu koy joxantee nii am na nu ñuy nu ñuy doxalee joxante bi day daan kàkk dagg bu ko defee mu tumuraanke moom parce que moom amuli tànk moom say loxo lay tafu ànd ak yow euh, yow mi ko yor yaay jóge fii dem bërëb nangam yóbbaale ko fa waaye bu nu bu nu beroo euh, masque wu euh, soril sunuy diggante xam nga li ma la léeg-léeg ñu gàttal tànk yi moom day day tumuraanke bu ko defee yëf yi ne kàkk loolu lañ tuddee la transmission la daal di dagg bu ñu ko deful nag dañ koy. mu ngi mel ni nga yar nit di ko engraisser muy gën a am doole rek. mais El Hadj yow yaay fréquenté ñoom professeur ak euh, ñooñu donc. te hmm. man waa mbedd mi dañu may yónni surtout sama waa génération dañu may wax lu bari ne ma. Hmm. ndax fi ñu toll nii affaire bi demul euh, ba jeex ñu ñu ñu peut-être benn euh, politique rax ci wala yu demee noonu ndax nee nañ mu ngi ci pic bi. nu yegg ci pic bi ñu ne dootul yokk day wàññeeku. Euh, ñu ñu ñu ñu gën a wax nañu nañu allégé affaire yi nga xam ne moom lañu jëloon euh, ci ay ay ci ay mesures ak yooyu. ba pare ne mm, nañu ko gën a fonk nañu ko gën a respecté gën ko kii respecté consignes ñi loolu. ndax mm-hmm. amul luy ndax amul lu ci làq. waaw xam xam nga euh, Aba nit ñi. dañ maa yónni. Mm-hmm. non non man ngay bu doon yaa ko wax ma mbëkk la. waaw yàgg sax man gisoo dama la xoolee ngay xaw a ralandi <laughs> non dama xam ay kilifa am nañu jotu toog di naxaatee bi dama ne. nit day yem ci fu mu war a yem. Mhm. yow dañu la bëgg a sàmmal sa wér gu yaram jàppeel sa bopp ku ku ku war a sàmm. Mhm. ki nga xam ni moo ko jàngi woon. Sénégal nag bo xam naa bu ñu jógee ci mbas mi dina wàññeeku fii ngay gis koo xamante ni dafay jàng juróom-ñaari at médecine benn journaliste jóge fële ñëw boo xamante ni moom leneen la jàng wala benn littéraire wala ab menuisier. boo xam ni armoire la mën ak yooyu naan day ak moom kooku di wax bu bëgg ko teg il faut que mm-hmm. loolu mu arrêté fii mm-hmm. bu ñu bëggee yëf yi rangeloo xam nga booy rangale ay mbir bu bëggee ordre ak organisation am dafa am doxalin yoo xam ni nañ ko moytu lu ko mooy dañuy dem ba banalisation généralisée am c'est-à-dire que dootuñu fonk dara duñu fonk benn métier ci loolu baaxul xam bu ñu nee ba ay ay ay experts di wax ñu naan est-ce que foofu na ko non il faut arrêter ca ca ñu def li ñu war ba pare ñu bàyyi di jëlale d'abord da nga gis nit kuy wax ci réew mi ca fekk benn brique tegu ko laa wax bu réew mi taxaw. dëgg la yow te mais tegal sey brique ba pare soog daal ni woy bâtiment bi dafa xaw a weng ak yooyu. Mm-hmm. mais yow bâtiment bi weng naam wengul tegoo brique ça veut dire waroo sax wax ci bâtiment bi. parce que yow jéemoo ca benn effort yow indiwoo suuf indiwoo béton puusoo brouette defoo dara. dimbali woon ci feer bi. donc loolu am na solo am na solo. il faut que ñu jàppalante abaa nañ bàyyi ay di vraiment njort géeg werante gu bari goo xam ne ça na mène nulle part cest à que da nga perte de temps perte de temps weesul xëy di wax ba jant so ci yow li ngay wax jariñoo ci dara di wax lu sa yoon newul parce que lu sa yoon newul mënoo fexee ba ak yow nga am ci yaram mbaa nga am ci o koom-koom mënta ne. elage corona euh, confinement quarantaine couvre-feu ak yooyu yëpp aaye li nga xam ni mooy wàllu dajaloog gi yëpp yëpp yëpp terewul gaa ñi ñu ngi takk ay soxna pas comme pas possible ñu ngi macha allah loolu mu ngi gën a yokk loo jàngat ci loolu. Euh, <laughs> parce que euh, fi ñu toll nii amul xew. amul soloog sumeeku amul ay togg ay lekk yu bari gaa yi di ñëw loo jàngat ci loolu. non aba xaaral xam naa dinaa ci ñëwaat dama ne. bu mariage accéléré nañ ko de. déedéet mm-hmm. da nga ne ma. Mm-hmm. wàllu masque yi. gars yi comme d' xam nga tam bu ma ñëwee ñu toog. bu ma ah, ñëwee ñu toog. non dinaa ci wax damay bëgg ñu waxtaan ci àdduna. ah, ah, ah. d' accord ko euh, couvre feu bi chaque jour dañu koy waxtaanee yaa ngi takk sa bos. Hmm. <laughs> sama bos a ngi nii ma teg <laughs> léegi yow fi ñu toll nii. léegi mariage da nga dama ni loo ci jàngatee ni ñu ko accéléré nii. ah dafa accéléré. waaw bàyyiwoo ci xel. <laughs> mooy ñiy profité rek. leer na ma ne bu ñu defoon enquête ñi ñi fi ci mbas mi ci takk suuf yi sama maasu ñenn ñi ci gi gars yi ragal yi. <laughs> dama ci yu bari. am fit ne yow nag moom. ñoom <laughs> ca kaw lañ koy def mais lu ci mën di ne. Mhm. takk yi xam naa wax ju yàqu la sax <laughs> bu leen dajaloo da leen takk masque ak yooyu nit ñi moom ña nga ca ba tey ña nga ci mbedd mi. mais police comme mu ngi di di di alamaan gars yi man ñi nga xamante ni samay mbokk lañu lay fàttali ni bu ñu fàtte masque bi. Mhm. parce que après fitna gam lay jural ak lañ lay alamaan ak xaj na feneen. demal wuti sa masque nga takk ko booy génn donc ñu ngi koy fàttali ñëpp. xew yi euh, bu mënta ñàkk bu ñuy dajoo fenn nañu respecté distance yi takk masque yi raxasu yi ñu teg ca wet ga xam nga loolu lépp mooy dundandoor gi ñu doon wax sànq ak ak virus bi. Mhm. loolu lu lu lu lu lu lu lu mat a bàyyi xel la. comme léegi kenn waxatul wax yi moom ay confinement euh, nañu leen jéem a góorgóorlu ci wàllu mesure barrière yi nga xam ne àddina yëpp maase nañ ànd ne lool rek mooy ciy pexe bi. pour nga moytu ko ginaaw ndogal nak ndax suñu borom lu dogal kenn mënu ci dara moy ngay raxasu di sol say masque lo rek la ci du wër di commentaire top internet gi di wax wax yo xamanteni amul le ben njariñ du la sam du sam say samu nga sam sam say mbokk ak say say collègue mo ëpp solo commentaire yi nekk ci réew mi commentaire ak jot la nañ dem liggéey wut kom kom go xamni nañu samal suñu ngor mo gën lu ko moy ci leneen lay dugal te boo seetaanee abba ba ak tardé génn gi dab la waxuma la sax naqaru xol ba nga ci am mais day mujj doon yàq sa diine. Mm-hmm. ngay iñaane ku la mm-hmm. deful dara. Mm-hmm. di wër di jaxasee nit. di di di di di di kàcc. yàq sa diine fa ñàkk fii ñàkk fële. yam lay dugal moo bon canal ba mu lay dugal mooy kan égu bu bon. waaw li koy moytu mooy nga yem yemloo say mbokk jaamu yàlla liggéey noppi ñu wàññi sunu waxante yu bon yi. wacc sa te xamni sa aduna ya ko meuna defaral euh, sa bop donc ñu respecté consigne ni bi amna na lu la kenn dul defaral Nid nit meuna la may million waaye mun la yar ñaata yon ngay gis kilifa go xamni mo gëna yar di ko gune gune gu ndaw ñaata yon ngay gis le contraire parce que yar mum yar la rek dañ lay yar wala yaruñ la débat na tollu ci rew meuna ñoo waxante suñu lepp defarando suñu rew sans pour autant que dara déplacé wu waaw bang bi du nawé fi dal ci bop ki brique bi du nawé fi bu amee rek ça veut yar dafa am ñu ñu yarul ci biir deug la amna solo dama lay bàyyi euh, nga xaar ñom professeur ak euh, médecin yu mag yoy nga xamni ñoo ñuy dimbali. ak non euh, tay communauté bi la xam nga ñom professeur ak yoy man dama leen di jéggal tout dañu sonn. Mhm. fogg ñu noppal leen docteur Aloyse noppal professeur Daoud noppal professeur Matar Camara virologue mang koy ziaru bu baax moom tamit nit ku baax donc ñu ñu ci askan bi on va prendre nos correspondants sur le terrain dem fu melni ni Kaolack ak Ibrahima Diamé xol ñun ñun yi nga xamni ñoo déssé mbir mi ndax ñanga ca ndax docteur yi ñun la waxala ah. ñom mhm. ñoom ñoom seen wàll wees na wax nañ mhm. li wara wax gis nga ñi ci war a def ñëpp def nañu askan wee ci des danañ jëlit benn euh, psychologue c'est un psychosociologue euh, ndax stress bi nit ñi euh, voilà xam nga stress. maa koy faj. Mm. waaw dama bokk ci ñi koy faj sax laay wax nag. dama koy waaw dama ciy xeex. Mm. Euh, maa ngi ciy def maa ngi ciy bay sama war baax xam nga yaa ni boo nekkee ci réew mi di wax dinañ la loo def ci réew mi. dëgg la waaw donc man li ma def ci réew mi mooy parfois leen seen stress. Mm-hmm. donc mais dinaa leen teg tey tuuti stress. nangu nañ la ko Abba Abba no stress. am na ñaari journaliste yu ma xam. Mm. yu jàpp dat dimanche bii di ñëw xam naa dañoo bëgg jël ñaareel fii ci kër gi <laughs> bugguma ko wax tey fii ak suba daal dina la may après dinaa ci wax ñaari journaliste yu ah, mag ah. lañ waaw man de bokkuma ci ah. <laughs>